ñu tënk ko rek ci ci waxtaan mën naa gàtt lool mooy jëmm ju tedd ji nga xam ne moom la ñu def xasida gi ci moom te sëñ làmpam sëñ Moussa Bassirou sàkku ñu def ko mu sëñ Abdul Hakim day koo xam dafa neex dafa manees neex naa waxtaane bu baax a baax ndax jëmm ju bëgg yàlla jëmm ju bëgg yonent bi sallallahu alayhi jëmm ju bëgg sëñ nit ku correct koo xam ne koo xam ne sa bëgg yàlla wóor na soo gisee da ko bëgg jëmm ju ju bari jom nag ci diggante ak borom mën naa ne sëñ du booy xool diggante ak borom kenn accompagné wu ko li ñuy wax rek xuus jàll la def ci digganteem ak boromam teel a xam yàlla lool te bëgg ko loolu Baye Xaadim Gajaga moo ma ko mel na Baye Xaadim Baye Serigne Gajaga mi ngeen xam moo ma ko nettali mi jàng mi may jàng liggéeyandool ci fulku bi sëñ du da koo fonkoon lool. ànd naag moom dem siyaare ji sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa di feddlil sëñ Abdu euh, bëgg gum ko bëgg ak cofeel gum am ci moom waaye ne Baay Sëriñ nee na sëñ Abdu moo ko ne ah Mbàkke nag loolu fàttewuñu fàttewuma ci dara ndax bi may gone nga xam ne dalaguma jàng rek euh, am na yoroon naa weccet sama loxo di ko fooyee am diw mënante caak man ba bëgg ma caa fitnaal waaye yow yaa jóg poñe ko ne ko sëñ Abdu mii nga xam ne xolam bi yàlla rek a ci nekk nga nga di ko fitnaal loolu yàgg na fi ne ba ci boo gisee sëñ Muntaxa otoom yii muy dugg ci kanam loolu bu ma juumut bàyyi Modou Fall mi koy dawalal moom ma ko nettali Modou Fall ab sax eh, am na oto bu ko sëñ Abdu doon léemul ne ko sëñ bi oto yu mel nii mel na ne kanam gi mooy mooy gën a yaatu ci yow sëñ Muntaxa nag bëggam sëñ ak cofeel gum am ci moom tax loola mu farataal ko def ko farat fi ne njaarim gi tey boo gisee gone yu bari bëgg bëgg diine bëgg lislaam di noote jumaa ji di fa dikk jeexit ji sëñ Abdou Hakim la jógee ndax moo daan def buy jógee sama kër nijaay Basiru Gumbala koor di julli ji fajar bari na ci gone yi booba man xale laa ndaw sax dañ koy topp ngir ngir am cofeel ci moom booba sax moom julli ji yëkkatiwul xale yi waaye sëñ Abdou ci boppam moom la gone yi meloon noonu ci moom dañ koy topp aller retour ba loola mujj na bari na ci gone yooyu ñoo xam ne fa lañ jóge bëgg diine ba niñ doone mag tey nga xam ne ñu ngi noote jumaa ji waxtu wu nekk bëggu di boole woon nag di liggéeyal sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla ñaar yëpp daaw ko jaawale bu ja day jaamu suñu borom bu nangoo jaamu suñ borom di ko bëgg sëñ Tuubaa gëm ko di ko liggéeyal waaye nag di ko teg ci yoon bu daan liggéeyal sëriñ bi ba jëfe farata jot dafay dal di dikk taxaw far joxe faratay suñu borom jot dafay dal di ñëw taxaw ngir fas koy ne joxe loolu am na histoire bu ci xew boo xam ne xel comme la xewee booba sëriñ Isaaxa moom sëriñ Moussa Basiru man moom laa dendal ndax booba daanaka ci kuréelam laa bokkoon di ànd ak moom suñ waxtu takkusaan la sëñ du di jiite takkusaan bi muy julli am ku ne ci sun gannaaw di wax man xam naa tey ba tey jii xam naa ko doon wax naan ginnaaw ñoom sëñ baa ngi julli ñoom mën nañoo dem liggéey waaye bi mu sëlmalee moom sëñ Abdul Hakim dafa jog taxaw jàkkaarloog mbooloo mi Mor Ndiaye ab safóoram la woon yàlla na yàlla na ko suñu borom yokk ay leer Mor Ndiaye mi ngi ci suñu wet sëñ Abdul joxoñ ko ne ko Mor Ndiaye ana ko doon wax di jër nag cër yëpp di lox Mor Ndiaye ne ko ah, Mbàkke de man waxuma dama doon julli sëñ bi ne ah, yéen laa wax man duma ànd kenn kuy xotti war may lislaam boo lëgee su ma nekkatee ci li ma war ku ma ca mën a fekk fa lillahi alhamdu waaye na ngeen xam ne du ma ànd ak ku xotti war may lislaam kon kon ku fonkoon lu baax la tey daaw daaw ci kaf daaw ci ree du ci kafe du ci cof dara itam waaw ci cof dara ndax am na bis man ci jaabeel ñu wàcc boobu boobu bu wàccee day toog ci ëtt bi bu bu bu balaa balaa julli timis ndax moo jiite timis ci kër gi ci jaabeel moom sëñ bu egsee moo jiite li muy sonn sonn moo jiite waxtu yëpp waxtu yëpp moo ko jiite moo jiite timis moo jiite gee fajar gi moo koy jiite ci jaabel bu ko defee ab mbay doog a jóg soññee bu jullee fajar rek dugg ci oto yi wuti ca tool ya am ci bis boo xam ne nag ci jaabel dafa dafa dafa dañu dafa toog di waxtaan ak nit ñi ci ron garab gi ñu indi café gi ma dem toog ma toog ne la ci xeer di jàpp di waajal timis ndekete mi ngi may bàyyi xel ma ubbi satala gi di jàpp mu kubéer gi tege ne tayel jàpp ma ma tëjaat tëjuma ko. mu jekki-jekki geesu ne ma ah Ablaye li ngay def nii lu mu doon yow yaa ngi jàpp ndox mi di jaar ci sa cër yi di rogaat di sotti ko ci ndox mi nga di ko jàppee lislaam kenn du ko fooyee di di ko wax di ko wax ba mu jox ko aw tàngoor nga xam loolu moom dund naa ko ak moom doo noon koo xam ne itam lu mu tawat tawat wala wala lu koy metti moom barab bu yàlla du ko xam maanaam barab boo xam ne ak jaamu yàlla fa nekk wala doo xam doo xam mënoo xam tawati sëñ du loolu am na bis ci njaareem am ñu mu woor si mel na ni indaale na euh, jagadig yaram am bi ñëwee nuyu ko am ku ko nuyu naan ko ah, man de mbàkke jataay bu yàgg bi rek weer ak ni ngay toogee ak nangam nangam euh, sa yaram bi mu ne mu ne ko ah déedéet man de jataay nag moom bu fekkente ne bi lañ fay def ngir yàlla tax ñu di ko def bu ma fa toogee du ma yëg tawat du ma yëg métit at ko ne man daal bu ma bu ma toogee daal te te la ñuy def addina kese tax ñu di ko def moom moom bu moom foofa lay yëge aw métit bay xel lool lool sëriñ tubaa ba ci lu mu fonk lu ne maanaam lu Serigne fonk lu ne loolu sëñ Basirou Fall mi mi mu taqaloon sama nijaay Bas Fall nettali na ma ko ne dafa dafa dafa dafa fonkoon poroxaan ba. Euh, bu màggal Touba masaan jot liñ koy indil ci ay xarak ay nag yooyu bu dajee day ñëwal boppam ba ci gétt gi tànn ñu tànn ya ca gën mu daal di may woo ba sur faal ma ñëw mu ne ma ay ca bu poroxaan jege yii na dem foofa ka fa nekk wërta lekkal kenn aw des soxna jaara bu sa lay wax radiyallahu taala anha xamoon loolu lu dig murit te daan ci soññ ab murit simple la moom simple latif nee am na bis sëñ Muntaxa di ko ko wooloo defe naa wala wala benn mu ko koy wooloo wala mu yónni ko ci nee na ma ma jànnaxe ba fàtte fa samay dàll bi ma dikkee mu xool ma ma def tànku neen ci naaj wu tàng wi nee na sëñ bi dama ana say dàll ma ma wax ko ko ne ah, man kay biñ ma nee naa ñëw de mu ne mu nee na mu ne ma ah waaw yoon wi de ku ci noppee tiit noppi cee jëriñu maanaam yoon wi ku ci noppee tiit noppi cee jëriñu bëggoon loolu murit bu wóolu sëriñ bi te am ful la ko bëggoon la loolu man dund naa ko ak moom mooy bi ma nekkee hôpital régional Kaolack directeur Massa colonel Massamba Diop moo fa nekkoon moom ab lu Sëñ Tuubaa la booba dañuy def bu weeru koor jotee ci la ma maas di libéré ma ñëw njaareem ngir ngir ngir koor gi aada jooju nag bi ki fa am ku fa wuutu maas koo xam ne bokkut ak maas pas-pas bokkuñu sax diine xam naa dafa ñëw ñu informé ko mu ne xaaral ba ba ba koor fekk ma fekk moom bi koor gi ñëwee ma demandé congé mu ne day suspendre congé yi du ko du ko du ko joxe ma daal di def abandon de poste fekk na booba jot naa ndigalul naa ñëw njaareem man daal def abandon de poste mu daal di may bindal demande d'explication ku mu ko jox ci taalibe yi murit ya fa nekk rek nga mer nga merle ma na ko déedéet man Ablaye xawma fu mu ne mu daal di ba ba Basirou Ndoye informé ma siru Ndoye ne ma ne am nga fi demande d'explication de maree di ci waxtaan ak Baye Fallou Thiam sëñ du génn ci bu jullee timis noonu muy def julli julli julli ba noppi génn Baye fallu di ko naan ko ah sa nguur si da ñëw na waaye mel na ne kilifaam nga da ko dana ko fitnaal bu delloo ndax sëñ bi ne ma ah lan lum nu mu wax ko mu ne ma déedéet toogal def liñ lay def loo ba mu jeex nga dellu daal ne may ah salaire yéen yéen yéen yéen seen wërsëg suñ borom ci si barkeb sëriñ bi aju ko ci saleer loolu mooy lan daal di daal di na ma dara bul bul dellu bul kii toogal ci liñ lay def la bu bu la ci dara jaaxal itam ah loolu nag yóbbee ma taw feex joo xam ne nii ginaaw man informé nañ man na léegi waa ji aj na sama salaire ak samay émoluments motivation yeeg yëpp ñu ma jot information bi sama taalibe bi bokki murit yi ku ko dégg rek laaj ma ne ma sa compte lu numéro bi ñaata la ma wax koo ñu daal di cay yónnee lu am solo xam ne sëñ Tuubaa rek moo man a kii nag loolu moom sëñ bi rek ko man waaw nga xam ne man yàkkamtiwu ma woon sax situation boobu décon décanté wu nag wax dëgg yàlla ndax mujj na nag murid yi wuutu ma nag ci sama bopp bu baax a baax. kon kon tàmbaleen tàmbale barkeb sëriñ sëñ mbi sëñ Abdu ndigal lim ma jox ma di ko jëfe barke bi tàmbali naa feeñ nag booba sëñ Moussa ngi fi waaw nga xam ne waxuma ci dara sëñ Moussa booba man sëñ dana ma déedéet nekkal yow ci liñ la nekkaloo rek dara ba su bi bi koor gi daataan jeex rek euh, directeur des hôpitaux yëg ko nga xam ne moo soxna Bintu Dan moom sëñ Dan xariloo ñoo bokk benn ndey soxna Bintu Dan moo ko yëg ne ma nu mu wax ko mu ne ma la loolu day du mujj fen gis nga la sëñ bi di mag gi wax ko ko mag gi woo directeur bi ne ko diw moom bu ñëwee na ko delloo salaire am ak i motivation waaw waaye bañ bañ daataan wari rek ci lañ décanté situation bi nga xam ne ACP bi Ndeye Assou Mbaye sama benn jigéen sama xarit la mi ngi sax Italie léegi boobu moo nekkoon service ACP moom moo woo ne ma ah, joxumpa yow am nga fi chèque de sa salaire bi ak sa kii yiñ koy nga xam ne dama ko booleeg yama jëlee ca koor gaag yama muri jox at moom moom moo dàq ci samam at nga xam ne ba mu jeexee bañ fàtte nag sëñ nee na ma noo def sa waaja ma ne ko waaja sax de mbàkke nga xamul mooy bañ waree ba teg ci weer rek la joteeg waa hôpital bi ci boppam ñu ñu sitingal ko grève am ministère de la santé daal di ko ne coppet yóbbuwaat ko fa mu nekkoon nga xam ne kon moom jëmm la woon joo xam ne nii dafa bëri dafa bëggoon lool nit ko am fula di ko am xam-xam nag ni ma ko waxee ci woy wi ci fànn yépp am na ci jaawil ku mas a ci xel ko muy naan mu jàpp ci mbumi xëcc ko ne ko eggal suuf naan taxaw baaxut donte yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan na taxaw te te sëñ bi la ndax Seydina Anas jëlee na ci Saïd mun Saïd al-Xudri bi alayhi salaatu wasalaam daana tere naan taxaw donte naan na toog nga xam ne ayut waaye cosaan li xam nañ ne naan naan toog a gën naan taxaw. kon noonu la xere ñëwoon ci lépp sëñ Muntaxa ni ma ko waxee léegi xam ne ci fànn gépp wax naa ko ci woy wi loo maanaam fànn goo indi bu ngeen toogee ak sëñ nga ti ci wax da ngay am kersa yow ma ko jàngi ba ci fànn gii nga xam ne tey li ñu tuddee la la antenne BTS nga xam ne loolu euh, ma Sëriñ Diop taawu sama tonton Modou Diop de Courwa moo ma ko nettali taalu bi suñu ba Hakim la na xam ne def naa Sonatel daanaka. Euh, daanaka def naa fa fukki at am naa problème mu expliquer mm, en terme simples la gestion du la congestion du réseau nga xam ne man am naa ci problème nee na benn bis nag ci ci ci ci kii ci Touba diina ay mag ñëw fa di di siyaare sëñ du ñuy waxtaan noonu ci garab gi ba dugg ci problème mu réseau yi nee na sëñ du mi may xool rek ba ci yàgg mu daal ne mel na ne loolu de nguur si dana ci xam dara ma sëriñ lay wax ma sëriñ nee na keroog am naa kersa ndax. Sëñ bu expliqué na loolu explication boo xam ne man mi ko def jànge ko université bañ jël ma am naa problème boobu sëñ daal ne déedéet du dara ni mel mooy néeg boo xam ne dafa def lu ëpp la mu war a def ba néeg bi saturé nee na sëñ wax am ku bëgg a dugg te te néeg bi fees na dara keneen xajatu fi loolu balaa mën a am day am ku génn boo amee ku génn rek am keneen ku dugg simplement nga xam ne nee na loolu mas na man dama mujj am kersa ndax lii ni ko sëñ bi leerale mu dugg sama bopp lu lu lu ma yéeme noonu amut ci àddina moom ma nga xam ne jànge na ko kon moom xereñ la defoon daf ni ma ko waxee dafa am xibra dafa nekk xabiir ci lépp loo teg ci kanamam rek sëñ bi am na ca xam boo xam ne nii dalay dépassé ni ni ma ko wax naa ko ci biir woyu boo déggee le mur de Berlin da ko daan maanaam dafa am bis ci jaabel mu ñuy expliquer le mur de Berlin fam cosaanoo li ko waral nga xam ne daanaka la yàq waxtaan wi mooy dañuy dañuy dañuy da koy expliquer ba timis jege ne ma leen ko waxee bu jaamu yàlla egsee mm, day doy waar ci ëllëg sa rex ci ëllëg sa sax yemu ca dafa ñëw ak ñun ci alif lam mim xulibatu ruum di ci wax ak ñun romain yi di ci wax wax joo xam ne nii dama mujj nag nag man man vraiment Sëy Abdu moom def na ma kaa ndax koo xam ne loo teg ci kanamam mu wax la ca loo xamut loo mës a dégg gën la koo jekku fuuf ëpp la ci xereñ dafa doy waar ba ci xeeti fa feebar yi moom waxaale wu ko moom tawat joo ko wax mën na la ko diagnostiqué ne la tawat ji cosaan li ci nangam lay jóge nangamay ta nangam mën na koo dànk wala nangam euh, c'est extraordinaire sëñ Muntaxa sëñ du ku ku ku yéeme la ci fan yëpp nit ku nit ku xereñ la woon te xam lu bare bare bare dafa mel na li ko li muy li muy xam daf koy dikkal ci saase fi saase man yàlla da taw feexal na ma benn bis bi euh, attentat World Trade Center bi muy am da fekk man ma ñëw Touba jamono yooyu ndeysaan ci la ma sëñ Muntaxa ci la ma sëñ Moustapha may soxna euh, <laughs> ci mbetteel may ñëw di vérifier ba xam noonu la demem déet fekk seen jataay yooyu ñuy ñuy ataaya fala fala ñëw ci ginnaaw fekk sëñ Muntaxa nga fa sëñ Fallu ak sëñ Abdu mooy ataaya ginnaaw sëñ Abdu moo fase woon soxna si nag ca ca jox nañ ma ko ci mbetteel nag jamono yooyu loolu tiital ma ma ñëw nuyu sëñ bi fekk ko juste muy muy laaj sëñ Abdou naan ko mm, mbirum Amérique moom Abdou nu mu demee yow de xam naa da nga ci am xam-xam ndeysaan fekk sëñ Abdou mooy xiim mooy tàngal ataay yi sëñ siggi li leeral sëñ bi ni mu demee la ko la ko indi ba ci juif yi problème bi ci amak ak nangam naa nga xam ne dañoo mujj dugg ci histoire loolu kon daal nit la woon koo xam ne sun mboroom daf koo may te may gi mu xamoon ko waaye mu sàmm li ko yàlla may dafa sàmm li ko yàlla may sàmme ko ngor. ak fulla ak fayda ak jom waaw di koo xam ne wax dëgg yàlla li ma ko waxee léegi rek waabud rabbaka xatta yatiyakal yaqin sax ci jaamu yàlla ba yàlla dikku ko dogalam ci loolu la nekk musta aat ndiku ci àddina du sonn ni ma ko waxee noonu noonu la demee jaabel ñi ko ñi daan jëm ñëpp mat nañ ci seere mooy buñ ba bañ jëli añ yi moom day daal di wut garab gu mu beru ne génne alxuraanam wala xasaa itam di jàng xam naa bu dee naan am euh, njarum soow lay doon mu mos ko waaye waaye waaye waaye waaye waaye déedéet ñam moom dafa mel ne da cee mujj amatu ci soxla waaw te maa ngi ci fàttaliku lu daw yaram loo xam ne sëñ Mustahin laa àndal sëñ Mustahin moom sëñ Moussa Nawel ak Muntaxa Mbay sëñ sëñ Mustahin ñëw fu guddi di ko indil xarum tabaski mu ko sëñ Moussa jox ginnaaw yàlla def na moom dama am dafa amoon sëñ bi ko fonkoon ba noppi man sëñ Mustahin di ko maame bi ñuy indi reer bi suñ mu sànni ah déet man kay sareeru bopp ba nag nañ ma ko indil ma seet ci la ne indil ko mu xool defe defe naa ne sëñ sëñ Moussa liñ ko indil mooy pot weñ boo xam ne nii la mu def ab ab ab somme bi la def bu bu ruyu mboq wala dara te daanaka xottu suukar demu ci moom da ko da koo sex rek daal ne la kii de kii de bàyyee na waa addina seen addina xam ne loolu loolu ca loolu lu mel noona lay mos waxtu wu nekk. kon mooy koo xam ne addina moom at at ci addina mosu ci aw ñam daanaka addina mën nañ ne naanu ci ba màndi waaw kulu washrabu hani an bi ma aslaftum fil ayamil xaaliya moom la muy la muy mos di ko di di ko mu di neexool fu loola moom fa boroomam la waaye fii moom bi fi nekk li ko tax a jóg mooy lëggeel yàlla ba jot ngërëmul yàlla radiyallahu anhum wa radu anhu ngërëmul ngërëm li boo gisee damay wax ne ñi ñi ñi mujj ànd ak moom liggéey ci ci ci ci ci Touba Medina muy liggéey bi mujj def lu daanaka ku ko ku ko yàlla fekkeloo rek am nga taw feex du rëy rëy rëy ndax bari na yu ca xew bari na yu ca feeñ am na yoo xam ne du ma ko netti li nii te kilifa wax na ko fa ci ci ci ci mujj gi nga xam ne kooku bi muy wax loolu dafa mel na dafa xam dafa xam dafa xam lu bare bari ndax sëñ du génnee na ci kër gi jëm ci jàkka ji di julli ji mu di ko muy xool sëñ Abdu sëñ Abdu ci yàgg mu daal ne radiyallahu anhum wa radu anhu waaw waaw radiyallahu anhum war radu anhu loolu mooy liggéey bi mat na sëkk ko kon nag yàlla na ko yàlla fayal yàlla noonu nu yàlla tas ci barkeem bi jaahi xaadimi mel na ne euh, sëñ Muntaxa sëñ Abdul Hakim fi ko addina gën a gën a gën a gën a gën a soxlaa euh, foofu la ko ñàkkee wax naa ko murid sadiq murit bu dëggal te te te gëm sëñ te ngëm ngëm gi neexuta nat ba ci Cheikh Mahamadou Lamine Bara fàttaliku naa bi mu doonee xalifa jataay bi mu njëkk a ñëw njareem moom dafa fonkoon sëñ Abdu daan ko daan ko daan ko tooñ ngir fonkeel waaye kaf na kaf ak moom sëñ Abdu Gàntu mu kaf kaf ak moom sëñ Abdu Gàntu ba mujj sëñ Abdu ne ko séqatuñu kaf maag waaw nga xam ne moom moom fi mu teg sëñ Tuubaa fu sore sore sore sore sori la waaw jëmm joo xam ne ni ma la ko waxee mënee su koo waxtaane ci ci ci benn benn jataay mënee su koo waxtaane ci ci wenn waxtu ndax dundam gépp mën nga koo teg di ko def ay ay point ndax ndax jikko ji jikko ji al axlaq alxamida jikko ju rafet la ko yàlla defal te te yépp rafet kon jikko ju ne boo ko tegee fii rek mën nga koo waxtaanee ba ba ba ëllëg di ko tas muy du kon mu bokk ci ña nga xam ne rek suñu borom gërëmoon na leen démb ndax lañ waxante woon ak yàlla def nañ ko minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi moom ca la bokk alladina in makkannahum fi l ard aqaamu salata wa aatu zaka wa amaru bil maaruf wa nahaw anil munkar walillahi aayaat yooyu yëpp aaya joo ci jël sa yëpp doo nga ca biir